néew ji doole ji nekkee ci Touba dañoo yittewoo taxawu ak jàppale moo tax commission sociale bu Touba ca kanam jóg di leen taxawu ci dundu ak ñoŋal seenug dëkkuwaay yi ñu amal quatrième édition journée sociale bu Touba ca kanam dajaleel tollu ci 58 millions de francs fa ci dundu ak xaalis ngir jébbal ko lu toll ci ñaari junni ak téeméer ak juróomi famille. ñu taxawu ñi nga xam ne seen loxo jur seen ginnaaw ci wàllu fuñ dëkk ndax léegi ngeen gis barab yoo xam ak ñi nga xam ne nii dañoo wéradi te seen i bokk xay na néew nañ kàttan ci mën leen a taxawu ak lu lu mel ne bërëb yi nga xam ne nii dañu fay jaamu yàlla mel ne daara kaamil yi nekk jumaa ji ak yu demee noonu ak ñi nga xam ne soxla woo ab amuñu fenn fu ñu ji ñooñu ñëpp daal ci gàttal daal taxawu ñi nga xam ne dañoo soxla woo mooy rôle commission sociale 2000 familles moom lañ moom lañ amoon objectif euh, ñi ngi koy doon natt ci ay 40 40 millions 500 lañ ko doon natt ndax famille bu nekk yaa ngi war a am gën gaa néew Euh, benn saako ceeb bu cinquante kilos ak juróomi kilos yu suukar ak tàndarma ak euh, mille francs yu koy transporté ak benn yére yére bi moom xayma wuñ ko ci xaalis ndax mën naa doon lu seer lool mën naa doon lu diggu doomu euh, jamono bi ñuy waxee nag objectif bi nga xam ne ni moom lañ visé woon weesu nañ ko fi mu ñu ngi ci ci bisub tay bi ñu ngi ci cent 2000 cinq famille ba léegi tamit jeexagut am na liste yoo xam ne dafa war a tàmbaliwaat altine incha allah ndax li nga xam ne nii dañ ko fay indi yëpp te seen i indi ko fi ngir bëgg mu delluwaat ci askan wi lépp dañ ko fas yéene delluwaat ci askan wi incha allah toll nii ci nature mi ngi toll ci 33 millions li nga xam ne ni moom lañ jotagun ci xaalis war koo séddale mi ngi toll ci 25 millions fii ñuy waxee nii séddalegun nañ 9 millions waaye nag lu ñëwaat tamit dañ ko ciy dolliwaat rek lu ñëwaat dañ ko ci dolliwaat ci biir séddale bi tamit dañ ko defoon ñaari xaaj muy biir corniche bi ak bitim corniche bi. ndimbal gi nag yemalewuñ ko ci deux mille cent quatre-vingt-cinq famille yi am na ñeneen ñoo xam ne yokk nañ ko ci. moo waral daari kaamil yi nga xam ne dañoo nekk ci biir dëkk bi yëpp am nañ ndimbal fa war a yóbbu muy Darou Salaam euh, da bu sëñ Soyebu Mbàkke Xewar ak Darou Khoudoss ak euh, Darou Darou Minan ak euh, Salaam ak Darou Moxti. ba ci daari kaamil yi nga xam ne dañoo nekk njaareem yooyu yëpp fas nañ fa nag bokkut ak xayma bii ma leen wax nii euh, ci handicapé yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tamit yi fi nekk yëpp ku nekk am na lim war a yóbbu ci yow loolu tamit bokkut ci li nga xam ne moom lañ jot xayma nii am na tamit euh, suñu bokk yoo xam ne dañoo loru woon ci liggéey bi daaw ci bi ñuy def opération defar yoon wi am na ndimbal yu ñu a yóbbu nii orphelinat Mame Diarra bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi tamit am na ndimbal yooyu yëpp nag bu ñëwee day dolli kuwaat ci liñ jot a def actuellement li ñu def mooy 30 33 millions séddale nañ ko ci dund séddale nañ 9 millions ci xaalis waaye lim bii ma leen wax bu ñëwaatee da ciy dolli ko waat kon bu mu bett kenn bu demoon ba doon 80 millions wala bu doon 100 millions ci ci ci bi. commission sociale bu Touba ca kanam action sociale yi nga xam ne moom lay def yëmul rek ci weeru koor gi ni diirub at mi mi ngi taxawu néew ji doole ji nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi ci dund dëkkuwaay ak nekkin. li muy def nekk ñu ngi Euh, ndax weer wu nekk am na loo xam ne dañ ko baaxoo yóbbu ci daari kaamil yi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji loolu bu sos bu weer koor ñëwee bu ñëwul lépp ci lañ nekk ni nga xam ne noonu la ñuy taxawee malade yi di leen traité euh, ci seen wàllu wér-gu-yaram ak wàllu ordinance am nañ ay pharmacie yoo xam ne dañoo def partenariat yi ak ñoom nga xam ne képp koo am ordonnance te mënoo koo jënd te ñu gëstu ba mu leer nañu ne am am nga ci ngànt su boobaa dañ la koy fàggul taxaw gi ni taxaw nit ñi tamit ci wàllu dëkkuwaay loolu day wëy day wëy taxaw gi ni taxaw ci wàllu dund day wëy Euh, dafa am nag am nag bis yoo xam ne nii nit ñi li ñuy sàkku day gën a yokk moo tax bu jotee dañuy gën a yaatal mbir mi mooy lu mel ne bis bii di koor danañ ko def ci kori gi danañ ko def ci tabaski gi danañ ko def ci màggal gi waaye li social di def moom lu sax la loo xam ne jamono ju nekk ñu ngi ci. mboolem ndimbal gi nga xam ne commission sociale bu Touba ca kanam moom la jébbal askan wi mi ngi bàyyeekoo ci barkeelu yoo xam ne mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi ñoom ñoo ko joxe. ngir ñu taxawu mboolem néew ju doole ji nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi ci seen i jafe-jafe ginnaaw journée sociale bi Serigne Abibou moom Cheikh Amadou mi nga xam ne moo jëwriñu Touba ca kanam àndoon nag délégation ñu seeti famille ñaari taalibe yi nga xam ne dañoo ñàkkoon seen bakkan daaw ci waxtu wi liggéey bi nga xam ne Touba ca kanam moom la doon amal ñu jébbal seenug njaboot dund ak xaalis jëf gi nag yoon lool ci seen waajur yi